أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki M Media Group nuurub daara ni ñoo ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonentam boobu sallallahu alayhi wa sallama di leen niiw nuyoo bu sell boobu di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu aq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu jéggal ñu suñu rëcc-rëcc te nangu ñu suñu jaamu yàlla bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama ñu nuyu ñëpp nag di leen ziyaare di jël nuyoo boobu ak ziyaar bi rek di ko teg ci loxol kilifa gi ak Cheikh Abdul Ahad Mbacké suñu jëwriñ suñu sëriñ di ñaan yàlla dolli ko kattanal dolli ko dimbali dolli ko taxawu ba lim bëgg a liggéeyal maamam ci yoonu Cheikhul Khadim bi yàlla defal ko ci lu ko njortam te nu ànd ko ak moom di jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sàkku rek siyaar boobu ak nuyoo boobu mu jot lu ñu ko sunu mbokk yi ñu bokkal liggéey bu sell bi yépp góor ñi jigéen ñi ñëpp daal képp ko sam numéro nekk ci biir groupe bi rek ñoo ngi lay nuyu di la ndokkeel di la ziyaare bu baax a baax di la wan di la yëgal suñu cofeel ci yow waaye tamit di ñaan liggéey bu sell bi nga xam ne bi sóobu nañ ko te muy liggéeyal maam xaadimu rasul yàlla gën ñu cee jàppale ba ñu am ci lu kawe suñu jot bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu leen di ndokkeel bu baax a baax a baax xam naa di dellu si waat tey rek ci liggéey bu am solo bi ci liñ ñu ci féetale muy wàllu jéem a tontu ci ay laaj ñu di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu doon ñu cee dimbali doon ñu cee defal tawfeex bu baax a baax a baax waaye itam di soññ sama bopp rek di soññaat mbokk yi ñu bokkal groupe bi yëpp daal ñu gën a jàppat liggéey bi gën cee farluwaat gën cee góorgóorluwaat bu baax a baax ndax lu ama am solo la lu baax la lu rëy rëy la ndax ni ñu ko tuddee muy liggéey liggéeyal sëñ bi te it ni ñu ko programme lépp loo joxoon rek maanaam mu dëpp ak loo xam ne lii liggéeyal sëñ bi la ndax ñu ngi koy dund muy lislaam te lislaam moom mooy waaru sëñ bi kon bu nu yàlla defalee tawfiix ba ñu am mbooloo moo xam ne mi dañ ni kat dañu liggéeyal sëñ bi te it def nañ ci ay tomb yoo xam ne yii di ca yëngutu mu méngoo lool ak liggéeyal sëñ bi te loolu la ca jiitu mooy alxuraanul karim yi nga xam ne ji lépp loo xam ne li mi ngi ci kaw suuf rek ci waaru lislaam yi maam alxuraan ko gën mooy mooy jiitu ñu di ci yëngu yëngu bu am solo wax dëgg yàlla di ko jàng semaine bu nekk waaye tamit xasiday sëriñ bi nga xam ne bi moom itam bu alxuraan jàlle xadis jàll rek gisatuñu dara loo xam ne yem na ak moom wala muy toll ak moom foofu it ñu di ci jéem a nam na bi di ko boole ci liggéey bi ak yeneen njàngale yu am solo yi nga xam ne yi mbokk yi ñu ngi koy jàngale ci biir liggéey bi wax dëgg yàlla loolu dafa am solo lool kon luñ ci gën a góorgóorlu rek doyut luñ ci gën a mën a jàpp luñ ci gën a mën a def suñu yitte rek ak lu jamono xat-xat rek ak lu mu tartar ak lu mu mitti mitti daal lii nu soobu nii nan xam ne tawfiix joo xam ne ji yàlla dana ko defal tàbbal ko ci biir mbooloo mi nga xam ne ku ci bokk rek nga xam ne am na tawfiix ju rëy rëy ju mag a mag kon luñ ko gën a fonk rek doyut luñ ko gën a jox suñu yitte doyut kon lu jamono xat-xat rek ak lu métti métti rek dañu góorgóorlu ba ku nekk la nga xam ne lii moom la ci yàlla séddee te loola maanaam bokk ci liggéey bi loola nga di ca góorgóorlu bu baax a baax ma di ci soññ sama bopp di ci soññ mbokk yépp daal muy borom xam-xam yi di nu jàngal ak ñi nga xam ne ñuy wax dëgg yàlla dañuy topp liggéey bi di ko saytu di ci taxaw ngën ci taxaw di ci defit ay leeral ak ay soññ ak di nu ubbil ay yoon yu am solo yoo xam ne yi noo ngi ciy jëriñu bu baax ak euh, ñi nga xam ne ñii dañuy teewlu di taatan di diglu ñoom i tamit mu doon waaru am solo maanaam tomb buñ ci jërit daal dafay am solo koo xam ne gii fu fu fa yàlla féetale nit rek na xam ne maanaam loolu ci liggéey bi la bokk te dara ëpp ko ci solo mu jàpp ko jàppin mu gën a dëgër bi jaay seen te yàlla di ñaan yàlla yàlla dolli na ci jàppale bi jaay seen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon tey xam naa leen fi am ci ay laaj mel na ni taxu koo bari lool waaye nag ñu jéem cee góorgóorlu rek suñu kemtalaayal kàttan te ñaan mu dëppoog ngërëmal sëriñ bi bi jaay seydna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon laaj bi ñu fi jëkk am tey rek mooy Modou Ngom ñi ngi muy jëwriñu liggéey bi moo ko fi tàbbal ñu di ko ziar bu baax di ko ñaanal yàlla gën koo kàttanal gën koo dëgëral eh, ci liggéey bu am solo bi mu sumb nekk ci eh, te yàlla def tawféex yi mu boole ñu ci muy lu rëy rëy lu ama am solo yàlla na ko yàlla doole jàppale daal ba liggéey bi moom fu nu bëgg mu àgg fa rek yàlla nañ ci yàlla jàppale ci darajaay Seydina Muhammad ak barkeb Cheikh Xadim daal ba nu amee ko nu gën a kawe suñu njort rek nu nu koy jorti rek ci bëgg mu yaatu ak ak sax ak ak dëgër eh, loola nu nu ko bëggee rek yàlla nañ ci yàlla defal lu gën a kawe suñu njort bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon moom dafay laaj loo xam ne lii lu jëm ci wàllu soxna yi la te mooy maanaam seen kàddu maanaam kàddu jigéen mooy dafay wax ne hal sawtul mar'ati awratun am laa wa ma hukmu rafa'i sawtiha fi salaati wa ghayriha dafay laaj ne euh, ndax kàddu jigéen moom kàddu googu bu ko yëkkatee ñu koy dégg awra la wala du aw awra moom kàddu jigéen maanaam jigéen di wax ca kaw loolu lañ laaj daal ne ndax loolu baatam boobu ñu koy dégg noonu awra la wala du awra ndax ne ne da ciy dégg daal ay wax yu wuute yoo xam ne yi ñii dañ naan jigéen wërta yëkkati kàddoom ndax kàddoom awra la ñeene du kàddu kàddu jigéen nekkut awra bu ko defee beneen bi ci toppaatit ci laaj bi muy yëkkati googu nga xam ne gi dañuy gis yenn ti soxna yi di ko yëkkati seen kàddu maanaam bu ñuy julli maanaam ñuy biral foofu yi tamit ak bu ñu lay jàng alxuraan wala leneen lu mën a doon ñuy yëkkati seen kàddu dafay am ñoo xam ne maanaam dañ ne waruñu fa yëkkati seen kàddu ya ñi ñeneen ñi tam ne mën nañ fa yëkkati seeni kàddu bu dee ci wàllu julli ga la ak jàng alxuraan ak loolu kon loolu mooy laaj bi daal su ko defee loolu lañ dañ ko ci wax ne ko laa yaxrumu ala almarati rafaw sawtiha ma lam yakun fihi xuduun wa lam yuxsha minhu xusulul fitnati lil mustami'i maanaam loolu moom liñ ci yër ci fi ne gëstoo wàllu fiqh ci boroom xam-xam yi daal dañ ne jigéen gi daal aayewu ñu ko mu yëkkati kàddoom fekk kàddoom googu maanaam ma ngi koy yëkkati te na nga xam ne li noonu la baatam aadawoo maanaam mu yëkkati ko yëkkati koo xam ne gi maanaam du neexal wax ja maanaam du neexal baatam maanaam du ko woyantoo te it yëkkati googu mu yëkkati kàddoom gi su fekkee ni benn fitna boo xam ne bii maanaam dañ ko cay ragal amu ca ngir ko koy dégg ne ne su boobaa duñ ko tere mu yëkkati kàddoom ñu di ko dégg comme la mu wax fee nag dafay wax ne wa sawtul mar'ati muxtalafun baynal ulamaay fiima ida kaana awratan wa yaxrumu rafuhu fi wujudi rajuli al ajnabi aw annahu laysa kadalika wala yaxrumu rafuhu su ko defee itam loolu mu wax ne ñii dañ na awra la ñii du awra loolu itam wax dëgg yàlla boroom xam-xam yi dañ cee am ak wuute waaye ñii dañu ne ñenn ñi dañ ne kàddu jigéen awra la te jëm dañ ne awra la ñoom dañ naan kon dañu koy tere maanaam bu nekkee ay góor yoo xam ne ay jàmbur lañ ci moom maanaam dañuy tere maanaam day araam ci moom maanaam muy yëkkati kàddoom ci kanam góor ñooñu maanaam góor goo xam ne gi ab jàmbur lañu moom bu ñu koy wax mooy moo ko xam ne gi da ko araam maanaam mu mën koo takk nee na daal su fekkee ne dafa nekk ay góor yoo xam ni su dekkee ni day yëkkati kàddoom ñu di ko dégg ñooñu maanaam fekk ñu araaman ñu mu araamante leen leen ak ñoom maanaam mën nañ ko takk lañ bëgg a wax te fekk takkuñu ko waawoon ne ne dañuy am na ñoo xam ne dañ ne maanaam bu boobaa dañu koy tere mu yëkkati fa kàddoom waaye tamit am na ñoo xam ne dañ ne su fekkee ni demewut noonu maanaam nekkut ak ñoo xam ne ñi dafa araaman dañu maanaam ay doonu ñooy jàmbur ci moom ñoom la nekkal ne ñenn ñi dañ ne maanaam mën naa yëkkati kàddoom ci seen kanam te foofu it comme weneen wuute ko nga xam ne gi moo ci am daal dafay wax ne wu rëyu raajihu huwa anna sawtal marati laysa bi awratin ne ne nag liñ ci wuute wuute lépp nag maanaam xalaat biñ gën a jàpp daal gën koo doyloo daal mooy kàddug jigéen daal dañ ne nekkul awra ne ne moom loolu lañu gën a jàpp li tax nag ñu ne kàddu jigéen nekkut awra ci ngir mu di ko yëkkati ne ne xalaat boobu lañ gën a jàpp te it ñi gën a ñi ciy wuute ñi wax loolu maanaam ne kàddu jigéen nekkut awra ñoom xalaat boobu moo gën a dëgër ñooñu dañuy tegtaloo ci aay bi nga xam ne bii moom laay bëgg a wax muy yàlla dafay wax ne yaa nisa nabi yi lastunna ka ahadin min annisaai in ittaqaytuna in ittaqaytunna fala taxdana bil xawli fa yatmaa alladi fi qalbihi maradun waaw bu ko defee yàlla foofu dafay wax ci soxna yonente bi sallallahu alayhi wasallam di leen wax ay daraja yoo xam ne ñoom am nañ ko alxuraan di wax ak ñoom ñu leen yéen soxna yonente bii day muy muhammad sallallahu alayhi wasallam yéemu leen a gën jigéen su fekkee ni yéen a ngi taqoo ak ak ragal yàlla maanaam bu fekkee ni da ngeen a taqoo ak ak ragal yàlla daal yéen a jiitu jigéen ñëpp maanaam jigéen ñi doog a topp ci yéen waaye ne ne kon fala taxda'na bil xawli ne ne nag li tax ñeene kaddu jigéen gi du awran maanaam ay bi lim leen tere ñoom jigéen ñi mooy maanaam di wax ca kaw maanaam di neexal sa kaddu di neexal seen kaddu la leen tere waaye terew leen maanaam yëkkati kàddu ndax dane fala taxda'na bil xawli maanaam bu leen di neexal seeni wax bu leen ko di woyantoo di neexal seeni baat ngir ngeen ci attiré ay góor yoo xam ne yii maanaam bu ngeen dee neexal seeni kàddu yéen jigéen ñi di ko yëkkati bu fekkee ne da ngeen koy def ci mbooloom ay góor yoo xam ne am na ci ñoo xam ne seen xol dafa feebar ci wàllu ay soxna ak yooyu ne ne maanaam bu boobaa dina am lu mën a def ci ab xolam loo xam ne ni day jéng jëm ci yéen te mën naa indi leneen kon ñoom dañuy gis ne aay bi kat terewut yëkkati seen kàddu waaye lam leen tere mooy bu ñuy yëkkati seen kàddu naal maanaam bu ñu koy neexal maanaam bu ñu koy weyantoo ngir dañ cay moytu neexal googu ñuy neexal seen baat yi bu ñu koy yëkkati bu fekkee ne ci mbooloo la nekk muy ay góor mën naa am koo xam ne ki ab xolam dafa am feebaru xol boo xam ne bi maanaam ak bëggam daal jéng na jëm foofu te neexal jooju soxna si neexal wax waxam yooyu ci jamono jooju maanaam mën naa def ci ab xolam leneen loo xam ne bi maanaam doonul loo xam ne li lu gën la ci seen diggante kon daal foofu daal ci aay boobu ci la ñuy dëgërloo ne fii kat yàlla terew fii ñu yëkkati seen kàddu waaye lam leen fa tere mooy maanaam bu ñu koy neexal maanaam nañu koy wax rek na nga xam ni noonu la ko yàlla bindee bu ko defee wa yaxrumu rafahu isa kaana fii xuduun bil xawli kon nee na daal balay kàddu jigéen di araam mu koy yëkkati mooy su fekkee ne da caa boole maanaam di ko neexal maanaam di ko woyantoo wa bi xuduril ajnabi yi ak it fekk bi muy neexal kàddoom googu di ko yëkkati dafa nekk ci ay jàmbur yu góor yoo xam ne maanaam mën nañ koo takk mën nañ koo takk su boobaa ne kon day araam ci moom waaye bu fekkee ne day wax naanam nam na baat ba aada woo rek di wax ca kaw bañ ca neexal bañ ca nekk di woyantu ne su boobaa may nañ ko mu yëkkati kàddoom mooy aay bii muy wax nii fala taxda'na bil xawli fala taxda'na bil xawli mooy bu leen di neexal seeni kàddu su ngeen di wax bu ko defee ne ne fa yatma'a allazi fi qalbihi maradun ndax su ngeen dee yëkkati seen kàddu yi di ko neexal ki am feebaru xol wàllu soxna yooyu maanaam day am lu nekk ci xolam bu ko defee ne ne waxul na xawlan maaruf daal na ngeen di wax wax yu jekk yoo xam ne yi lam jublu ca wax ju jekk jooja mooy na seen baat ya aadawoo maanaam noona ñu ne yëkkatee seen kàddu ya te bañ ko di woyan to bu ko defee wa xukmu qiraati almarati lil qurani wa gayrihi bi sawtin murtafiin amaama rijaalil ajanib dafa am maanaam bu ni ci wàllu soxna si di jàng alxuraan wala lu dul alxuraan ndax dafa bokk ci laajam ne comme jigéen bu fekkee ne day julli nga xam ne am na julli yoo xam ne dañ cay biral am yoo xam ne dañ koy yàllu waaye bu dee ci alxuraan ji la léegi dañ ne bu dee ci jàng alxuraan la wala leneen loo xam ne du alxuraan mën nañoo wax ne lu mel ni ay xasida ne ne maanaam dafa am ñaari anam maanaam dafa am ñaari fànn yoo xam ne moom lañ koy tegal nii moom soxna si anam gi ci jëkk mooy an takuna xiraatuha lil quraan yi aw xayrihi fiiha taxsinun lis sawti wa taxanni wa fi hadihi al xaalati laa yajuusu lil marati an taqra al quraana amaama rijaali al ajanib lima fi zalika min fitnatin ne ne anam gu jëkk gi daal soxna si bu dee jàng alxuraan wala leneen lu mu mën a doon maanaam ne ne su fekkee ne day neexal kàddoom wala boole ko di woyantu ne ne su boobaa buy jàng dañ koy tere mu yëkkati kàddoom di jàng alxuraan ci kanam ay ji ay góor yoo xam ne yii maanaam ñu ngi nekk ak moom ndax ne ne bu boobaa yëkkati googu mu yëkkati kàddoom di ko neexal di ca woyantu su boobaa maanaam lam waxan feene fitna mën na caa juddoo jëm ca góor ñooñu nga xam ne ñoom lañ nekkal moo tax dañ koy tere bu dee neexal daal bu mu yëkkati kàddu muy genn anam gu jëkk gi geneen anam gu ñaar gi mooy an takuna xiraatuha bila taxsi sawti wa taxanni wa fi hadihi lxaalati yajuusu lil marati an taqara alqurana amama rijalil ajanib wa isa kaana hunaka xaajatun li zalika ne ne kon geneen anam gi ci desin mooy su fekkee ni soxna si bi muy jàng alxuraan di ko yëkkati maanaam neexalut kàddoom maanaam nekku ca di woyantu wala muy soppi kàddoom ngir kàddu ga neex dana su boobaa may nañ ko mu jàng alxuraan ca kaw ci kanam ay góor yoo xam ne yi ñu nga nekk ak moom su ko defee loolu day nekk loo xam ne lii du mën a ñàkk ci soxna si maanaam muy jàng alxuraan ndax bu fekkee ne day jàng maanaam dañu koy jàngal muy jàng alxuraan war koo tari faaw da koy yëkkati ca kaw waaye nee na kon may nañ ko nag mu jàng alxuraan ci anam gu mën a doon waaye ba mu des nag maanaam muy neexal kàddoom neexal gi daal moom la ñuy bañ ci soxna si bu dee ne leneen lu dul alxuraan leen lu mel ne xasida wala lu mën a doon itam ko bu boobaa it may nañ ko mu jàng ko rek ci kàddoog aadaam waaye dañu koy tere bu fekkee ne da koy neexal wala mu di ko woyantoo moom dañu ko naan bul ko yëkkati bu dee ci julliyeet itam mu ne wa fi salaati sharaa allahu li ibaadihi aljahra fi lfajri wa fi rakaati alula wa thaniyati min al ishaai wal maghribi wa haasa aamun li rijaali wa nisaa ne bu fekkee ni ci julli la itam maanaam liñ ci gëstu mooy dañ ne maanaam yàlla dafa am ay julli yoo xam ne yii maanaam sharia lam ca tëral mooy dañu ko war a biral mooy lu mel ni bu dee dañuy julli julli suba julli googu njàng mañ cee jàng dañ ko war a biral bu dee ni ñaari rakkaay gee ñaari rakkaay yu jëkk yi maanaam rakkaay bu jëkk bi ak bu ñaareel bi dañ ko war a biral waaye bu dee ni tam timis lañ ñoo ko bokkale ñaari rakkaay yu dañ ko war a biral te ne ne biral googu nga xam ne gii nag moom la sharia teg maanaam xajjiw ci góor xajjiw ci jigéen dafa wax rek ne maanaam haasa amun li rijaal yi wan nisaay biral gi nga xam ne gi moom la sariya teg ci julli yooyu nga xam ne dañ ko war a biral ne ne góor ña ak jigéen ña ñoom la ca sariya yemale maanaam ni góor di birale daal su neexee jigéen bi moom it buy julli julli yooyu maanaam mën na ko biral ndax tenn ne li anna shariata ammatun illa ma xassahu dalil bir rajuli aw bil mar'ati ne ne ndax sharia moom am na ay atte yoo xam ne yi su ko tegee maanaam day boole góor ñi ak jigéen ña ñoo koy bokkule waaye lépp loo xam ne ni maanaam nar na ko xàjjale ci seen diggante rek maanaam da koy daal di xàjjale indi ci ab tegtal boo xam ne bi danaan lii góor moom la war a def lii jigéen moom la war a def waaye nag biral gi nga xam ne gi nag moom la ñu war a biral ci julli yooyu bi ko charia di teg daal maanaam xàjju ci góor xàjju ci jigéen dana rek maanaam julli yooyu nañ koy biral kon foofu itam buñ fi dellusiwaat ci kàddu soxna si buy jàng maanaam buy julli day biral maanaam lañ ko doon terefe rek mooy maanaam bu mu neexal kàddoom maanaam na jàng na nga xam ne ni maanaam noonu la kàddoom na rek waaye bu mu ko neexal wala muy suppi kàddu ga ngir ñeneen ña koy dégg muy góor ña maanaam mu mën a indi fitna ja nga xam ne ji moom la doon wax fee bu ko defee fal mar'atu jaaza laha an tajhara fi salaati ne kon may nañu soxna si daal julli yooyu nga xam ne dañ koy biral maanaam bu koy julli maanaam nee nañu may nañu maanaam mu biral ko comme ni nga xam ne noonu la ko góor ñi di defee nee na nag wa ida kaana xawlaha rijalun ajanibu fal afdalu adamul jahri laha nee nag su fekkee ne nag dafa nekk ci biir ay mbooloo yu góor yoo xam ne yi maanaam ay jàmbur lañ ci moom nee na lay gën maanaam mooy su boobaa maanaam mu bañ a biral maanaam bañ a yëkkati kàddu googa li an rajula xad yuftatal bi xad yuftan bi sawtihaan ane ne su fa ay góor nekkee kat mu yëkkati kàddum googu maanaam mën nañ ca amee fitna kon daal ci tënk rek jigéen daal kàddum googu moom am na ñoo xam ne moom li ñu gën a jàpp mooy maanaam du awra waaye tamit ci diggante mu di ko yëkkati ak ñàkk koo yëkkati daal maanaam mooy may nañ ko mu yëkkati ko te bañ koo neexal waaye su fekkee ne da koy neexal nag di soppi kàddu ga bu boobaa daal loolu lañ koy tere kon bu ñuy tënk foofu rek mooy daal jigéen gi may nañ ko mu yëkkati kàddoom waaye bu mu ko neexal bu mu woyantu bu dee alxuraanul karim lay jàng may nañ ko mu yëkkati ko ca kaw ñu di ko dégg waaye kon bu mu ko jàng comme di ko neexal ne ko góor ñi defee bu dee ne daa nekk ci julli itam julli yoo xam ne dañ koy biral may nañ ko biral waaye itam bu mu neexal kàddoom bu fekkee ne day jàng leneen itam lu mel ni xasida wala leneen lu mu mën di jàng may nañ ko mu yëkkati ko ci ko waaye daal bu mu ko woyantoo bu mu soppi baatam kon daal dañuy daal di gis ne daal jigéen gi duñ ko may daal comme li ñu seetlu ci yennati soxna si yennati soxna yi ñuy jàng ak ay xasida di ko mel ni dañ koy kuréel loolu moom wax dëgg dañ leen koy aay ndax bu boobaa neexal kàddu ga da cay daal di dugg wala ñuy gis ay soxna yoo xam ne dañuy jàng alxuraanul karim waaye di ko di ko neexal comme noonu ñuy waxee tajwid ni ñu koy waxee mooy di ko neexal loolu itam day daal di gis ne kon loolu it dañ leen koy aaye kon laaj bi daal xam naa lu yaatoo yaatu la xam naa lu ci mbokk yi gën a mën a defaat ci leeral rek ci wàllu woowu daal ndax fiq moom dafa yaatu lool dafa yaatu waaye it laaj yi am na solo lool ndax lii moom ay tomb la yoo xam ne yi maanaam ñu baree bari mën nañ ko bañ a bàyyi xel te it lu ama am solo la ci ñu war a mën a xam lu mu doon lu ne ban taxawaay lañ ca war a taxawee ci sunu wàllu diine bi nga xam ne bii moom la ñuy jaamoo yàlla kon daal laaj boobu daal jëm ci kàddug soxna googu daal soxna yi daal noonu la fa demee maanaam jëmmi awra ji moom ñii dañ ne awra la ñii nag ne du awra yëkkati ko itam aaya bi maanaam dañ ne aayu ñu leen ko maanaam ndax alxuraan ji lii na ci jàng ni mooy aaya boobu ma ci jàng noonu mooy yàlla tere leen ñu yëkkati seeni kàddu waaye da leen a tere neexal ga maanaam di ko yëkkati ko di ko neexal la leen tere waaye terew ñu yëkkati ga kon booy jàng alxuraan kan it booy jàng aaya boobu boo déggee noonu mu ko waxee mooy fala taxdaana bil xawli ja mooy new leen bu leen yëkkati seen kàddu waaye dana bu leen ko neexal kon neexal ga daal la ñuy bañ cee yëkkati ga yal nañu yàlla defal rafi abdi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam beneen laaj bi ci topp Basiru Fay moo koy laaj ñoo ngi koy siyaare di ko ndokkeel moom itam dafay laaj daal lu jëm ci wàllu aw awra ba tey maanaam waaye ci julli la maanaam julli maanaam sitrul awrati lay wax la ñuy wax maanaam la- li nga xam ne lii maanaam bu ñuy julli bu feeñee ci sunu yaram day doon aw awra woo xam ne day yàq julli ga loolu lay laaj su ko defee eh, dafay wax ne day seetlu ñoo xam ne ñi bu ñuy julli dañuy sol ay yére yu yaraax yoo xam ne dangay mën a gis seeni yaram wala ñu sol ay façon mbubb yoo xam ne kan eh, wet yi wet yi dañu koy xar nga xam ne duñu jiital dara ci mbubb moomu nga xam ne buñ ko solee boo xoolee di nga mën a gis seen côté càmme ndeyjoor di nga mën a gis seen côté càmmoñ ci jamono ji nga xam ne ji moom la julli maanaam jàkkaarloog seenu yaram mm, di ko gis léegi dañ ko naan eh, sitrul awrati min shuruti sihati salaat maanaam muur aw awra dafa bokk ci charte yi nga xam ne mooy tax julli wér kon nit ki bu dee julli dara di feeñ ci awraam maanaam day tax julli ga du wér dañ ne sitrul awrati min shuruti sihati salaati muur li nga xam ne aw awra la moo xam góor la wala jigéen la ci julli dafa bokk ca sarta yi nga xam ne mooy tax julli ga wér waaye kon day aaju maanaam ñu xam lan mooy awraw jigéen maanaam fan la tàmbalee ak fan la yem ba buy julli eh, war a muur loola te bu ko muurul ñu gis ne julli ga kon wérut waaye tamit dañoo war a xam se- awraw góor fan la tàmbalee ak fan la yem ba nga xam ne loolee nga xam ne moom lañ ne mooy aw awra ci góor lum ca muurut nga xam ne bu jullee julli ga du wér maanaam day aaju ñu xam ko kon dañ naan wa awratu rajuli duuna may ni maa bayna suratin wa rukbatayni góor moom ah, bu dee ci wàllu muur aw awraam moom awraw góor lu yomb la maanaam bariwut ci moom maanaam góor bu aw awraam bariwut ndax sëriñ bi bayit gi nu jàng bi nu jàng téere yooyu mu aju ci fiqh dane awraw rajul awraw góor daal awraw góor dane mooy mi ngi tàmbalee ci jumbax bi ba ci óom ya maanaam loolu mooy awraw góor góor ne ne aw awraam mi ngi tàmbalee ci jumbaxam ba ca ay bëti oomam loolu mooy awraw góor kon euh, góor bu dee julli góor góorlu ba fexe ba loolu nga xam ne lii mooy jumbaxam bi mu muuru ba ca oom ya lépp sangu su boobaa li ci des lépp bu doon feeñ ñu koy gis maanaam bu boobaa julli ga wér na yoo xam ne gis nga euh, góor bu ko neexal fi mu ne nii bu wutee ab ab yére boo xam ne bi maanaam bu ko solee rek maanaam mu daal di muur oom ya daal di muur jumbax ba mën naa bañ a son bu bu ko neexee julli te bu julli bu boobaa julli ga day wér kon góor gu nga xam ne gi buy julli day sol yére bu yaraax na fexey ba yaraax yaraaxe moom bu ca jumbax ba bokk ba ca oom ya su fekkee ne day sol bu moo xam ne mi dañ koo xar ci côté yi awra yaram yi di feeñ ci ñaari côté yi na fexe ba maanaam lay feeñ noo ne maanaam li tàmbalee ci jumbax bi ba ca oom ya bum ca bokk kon daal loolu mooy li nga xam ne lii moo aju ci laajam boobu kon loolu mooy li nga xam ne lii moo aju ci awraw góor góor daal bu ab jumbaxam muuroo ba cay oomam su ko neexee mën naa bañ a sol leneen te bu jullee dana wér bu dee jigéen la nag moom dañ na léppi yaramam yépp maanaam aw awra la ba mu des maanaam tenq yi maanaam loxo yi ak xarkanam bi jigéen moom buy julli maanaam lépp lu feeñ ci yaram wi lu dul ñaari loxo yi muy tenq yi ak xarkanam bi rek leneen lu ca feeñ rek maanaam su jullee julli ga du wér ndax moom dañ ne moom soxna si léppam aw awra la ba mu des xarkanamam ba ak ñaari teng loxo yi maanaam kon soxna si moom maanaam moom bu ñuy julli war nañoo góorgóorlu ba muur boobu nga xam ne moom la ñu war a muur seen yaram bi ñu góorgóorlu ci ba farlu ca lool dara bañ a feeñ ci yaram bi ndax lépp loo xam ne li feeñ na ci seen yaram wa rek lu du ñaari béréb yooyu maanaam day tax julli ko du wér kon loolu itam nañ ci gën a góorgóorluwaat bu baax ba suñuy julli ndax nag muuru gi sax moo leen war moom dañoo war a taxaw ak moom fu ñu mën a nekk rawatina bu fekkee ni dañoo dugg ci biir ak julli su ko defee it man tey dafa am ab laaj boo xam ne bi dama koy laaj bokki groupe bépp nag maanaam groupe bi góor ñi ak jigéen ñi ma am laaj bu ma bëgg a laaj boo xam ne bii day jëm ci wàllu julli waaye muy doon it jullik timis damay laaj jullik timis koo xam ne kii benn rakka da ko caa raw nan lay feyee rakka boobu ko raw bu imam ji sëlmale waaye tamit jullik timis koo xam ne kii ñaari rakka da ko caa raw su imam sëlmale ñaari rakkaam yooyu nan la koy feye ñaari laaj yooyu daal lay laaj góor ñi ak jigéen ñi ku ci nekk rek boo ci defee tontu incha allahu dinañu fexe yi damay programme nag comme dimanche nañu def fatwa bi altine ca ngoon bu ñu jullee cinq heures incha allah ñu saytu tontu yi nga xam ne yi mbokk yi tàbbal na ko fi ci maanaam laaj yooyu su ko defee ñu seet ya nga xam ne yi moo ca normal moo ca baax moo ca jub ñu siiwal ko ya nga xam ne yi tamit jubu ca maanaam ñu jéem a jubbanti seen borom seeni borom ña nga xam ne yi tontu nañ te tontu la demewut noonu kon laaj bi mooy ki nga xam ne kiy jullik timis benn raka da ko caa raw bu imam bi sëlmalee ba muy fay rakam boobu nu mu koy feye waaye itam koo xam ne kii ñaari raka moo ko raw ci jullik timis ga si imam sëlmalee ba muy fay ñaari rakam yooyu nan la koy fayee kon yal na yàlla doole defal tawfiq di jay seydna muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi dellu di leen siyaare leen dokkeel bu baax a baax a baax kon ni ma ko waxee rek incha allah mbokk yi buñ ci tàbbalee seeni tontu incha allah altine ca ngoon ñu def ko programme am ñu saytuwaat ko lu ca jub rek ñu siiwal loola la ca desin ñu jéem ko jubbanti di jaay seydna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf